voilà gis ngeen xeetu bernde yi dundal na ko bi sukarin aw la amin njàngum alquran mi ak xasida yi ak ak waxtaan bu am solo wu ñu doon ci siira ak jaar-jaar sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ñun nag suñu xol sedd nañ guy guy guy guy bu fa teewoon yaakaar naa sa xol seddoon na ndax eh, gis ngeen kuréel yi gis ngeen jataay bi kuréel yi ak borom jukki kenn ku ne yaa ngi jàng jàng alxuraan ndax ëtt bii ci boppam moo ëtt alxuraan kon nag ñu am lu ñuy wax loolu jërëjëf Serigne Cheikh Aliou Mbacke ndax ñun ñu xam ay taalibe la suñu xol dal na suñu xol sedd na suñu yaakaar gën naa dëgër dañ seen tubaab moom ndax lii ñu gis mu sant suñu borom rek lañ mën a def ndax ko am wasila wu mat mel ni sant yàlla la ngay def kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa jërë ngeen jëf soxna sey njaay moom mi yor njabul njaay dama jaara doon njaay jaay ko soxna sey njaay ma def ko njaree njaay ma ni moodu ablaay sëriñ moodu ablaay yore yàlla naa gaay wala war na bu yaay na bis bu rëy waay Sëriñ Moroom Doomu Laay yow la yàgg la naa gaay wala maam la ko jaay jox la bis bu rëy waay bisu soxna say jaay ku ci farlu man waay am dalam bari kaay yu tamat waay ànd day sikar laay suñ maam Seynabu Njaay bu wootee wutal ngaay liggéey yu tamat waay ànd day sikar laay ba fajar ñu naan laay toppi musul saay saay yoonu yàlla moo daay la ku ñëw di am waay ba fajar ñu naan laay